non and ak ñom dotul jafé parce que ñom bañu togué ak euh, maire Racine la, ba euh maire bi am lu mu leen wax té ne li la doon wër bobu ba légui moy am ben interlocuteur bo xamné mom lay waxal parce que li mo wax sank rek pëccaxoo bi dafa bëri won dal ah pëccaxoo bi dafa bëri won c'est-à-dire ku jogon rek da ngay ñëw ne dimbale ma damay def damay def damay def événement bi maire japp ci ñu japp ci mais lay jox sax du la doy tandis que ñoom ñii ñëpp suñu dajé and ñu né ñu né li le li programme bi li le par exemple ñu né calendrier bi annuellement agenda bi li le mais maire fu lu mu mën dina ko def man xamna ko borom jom la dana ko def li nga xam no lay wax sank fi ci Aliou Sall ne mu leen di defal lele ñom duñu ñu xamna né mom mi muy muy Racine Talla li moom am leen dig te man xamna mom lu mu dig nit xala bakam bi yalla ko yalla may mais xamna dina ko def mom du diggee mu munul ku ko xamit xam coo ci loolu xol bi yatuna il est généreux comme tous les maires qui sont ici mais man mom la mun a actuellement fi ci li nga xamné euh maa ko fekkee keroog mu wax ko ak ñii man xamna né mom moom dana ci def lu mu mën dana ci def lu mu mën légui nak mom dafa ne yeen yéen soo leen jógee si lii ba def sen bureau ba paré ba décliner sen euh, objectif yi mais na ngeen ñew mu dajeeg mom pour li ngeen waxone nous c'est nu ñu koy defee ak pour mu leen appuyer lii moom waxoon na parce que la culture kenn xam ñëpp xam nañ c'est une compétence transférée mais comme l'a dit tout à l'heure mon ami mais c'est pas suffisant pour yéen li ngeen li li acteurs yi bëgg yëpp ñu def ko loolu c'est pas suffisant donc mairie toujours rek dañuy am toujours rek ñoom ay yeneen levier yu ñuy yoo xam ne moom la ñuy moom pour mottali par exemple lii nga xam ne mooy seen mébét yéen mais man xam naa ñom am nañ xol bi bëgg nañ ko té ay xaritu monde culturel culturel bi lañu en général lolu waxoon na ko sank dal bon euh mom mi sax xamna du yag dinañ am mag mom réunion parce que beaucoup de choses vont changer beaucoup de choses vont changer té mom mi yalla day door dogal rek mais ko xam la yag na xex ci lolu yag na ci xex mais fi mu nekk nii dafa jot yalla def na mu jot tay pour mom li xalat bu rafet bi mu amone ñun ñu tok ñu xol lolu naka lañ koy jëmmale té man xamna lolu dina am inshallah allah dana am moom xam na xam dinañ toogaat du yag maak moom xam naa bu dul semaine bi di semaine prochaine dara ñu toogaat maak mom pour ñu ci li nga xam mom moy sama domaine man ñu concrétiser ko waaw lolu inshallah ñaan nako yalla té mom moom xam na ko sama rakk la nit ku bax la ñung koy ñaanal yàlla nag mu def vraiment ñun la defal lii moom yàlla ko yàlla te képp koo xam ne koy jéem nasaxal rek yàlla la yàlla nasaxal ndax nag ci la lépp ku ko bugul rek ku rek c'est parce que tu es égoïste mais koo xam ne intérêt culture rek moo la doy yow li la doy mooy maanaam ñoom ñu ku ci mais vraiment lii boo ko gisee war koo applaudir demain, de ba ci ni ci war a te nag ñu bañ

man jàpp naa ne loolu la daal yàlla ñu yàlla musal mu Géejawaay yàlla def euh, euh, may coordonner comité d'initiative. manam comité bi nga mo xalat euh dajale acteurs culturels yépp ci benn fédération ñu woy ko fédération Géejawaay culture depuis un an maa ngi ci liggéey bobu waaw promesse euh, en réalité du ay promesse sax ay projet la ko mun woyé ndax président Macky Sall mi nga xamné ne mooy réew mi mom mo né dafa bëgg a sukkandiku ci euh excusez-moi dafa bëgg a ci culture manam aada ak cosaan. pour développer géejawaay moom daf ko wax te wax jooju mu wax noonu waxu ko nii rek ndax 1996 bi ñu créé Guédiawaye experts yi ñëwoon di xalaat dañu ne Guédiawaye amul ay usine Guédiawaye amul ay commerce yu mag Guédiawaye aada ak cosaanam ak xarañte nitam yi rek la mun a développé wu donc président de la fekk si leen le 20 février 2019 bi passé mu ne dafa bëgg a sukkandiku ci culture pour développer la ville de Guédiawaye waaye tamit day sori sax ci loolu plan Sénégal émergent bi nga xam le mooy politique de développement wu euh, euh, Sénégal ba 2035 ñetti programme la am programme zéro déchet programme zéro bidonville ak programme ville créative a un programme ville créative qui est une ville pilote maanaam moo koy porté donc nag ñun tey bu fekkee tey waa ministère de la culture ñëw nañu fi ànd ak suñuy maire toog fi def ay promesse ñun jàpp ñu ne loolu ay promesse Nous avons fait un projet la ak programme yu ñu nar a tëral pour jàlle ko donc ñun nag dañuy taxaw géejawaay ñun tamit acteurs yi ñu booloo nekk benn accompagner loolu ndax ñu ñooy bénéficiaires yi dëgg la dëgg la loolu loolu réalité la loolu ci Sénégal de façon général réalité la euh, boo gisee sax nu ñu bindee budget yi nomenclature budget yi dangay xam ne culture lañ ci gën a néewal doole boo gisee ni ñuy former gouvernement yi sax euh, culture lañ ciy xaw a néewal doole euh, loolu dafa nekk xëy na ci suñu aada C'est une conception c'est une perception parce que nous avons une culture forte. donc il faut que jox peu ba mu peu un ma que en réalité ce ñu nous devons nous faire un nous rectification un rectifier euh, euh, président de mettre en place un programme programme programme ville créative programme ville créative c'est lépp création

donc loolu dafa nekk lu lu am solo lo xam ne li géejawaay culture mu ngi bëgg a dajale ba léegi nag acteurs culture yi nga xam ne bokku ñu géejawaay culture ñu ngi leen di tàllal loxo ndax mbir mi mbiru ñëpp la mbiru géejawaay yëpp la mbiru acteurs culture yëpp